ci jëmmi yonent bi di ko toppandoor di ko toppandoor di ko toppandoor ba far ko niru niru ko ba far ko doon soo jëlee yonent bi ci njàmbaar danga xam ne Cheikh Ibrahima niru na ko ci njàmbaar yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ne bu xare tàkkaan xare bi diŋoor gaañante bi bari soo ñëwee danga fekk ka gën a jege noon yi ka gën a jege jaas yi noon yi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam lay doon waaye loolu yaakaar naa ne Cheikh Ibrahima Niass donn na ko ci moom ndax bi faydu bi di tàkk bees nit ñi di de xéefar bi di ko yoot ba agsi ci moom ne roseet jaasi ji wéqu ko yonent bi ne xifeet xool ko mu ne ko ku dox sama diggante yow pour ma rey la yonent bi ne ko sama borom mu tiit ba jaasi ji rëccu ko yonent bi jël jaasi ji mu sukk yonent bi ne ko ku dox sama digganteeg ma rey la mu ne ko yàlla ak ab yonentam yonent bi sànniyaat jaasi ji tëddaat wan ko gannaaw loolu dafa boolante doon jàmbaar mën a bale ak óolu yàlla ñett yooyu yëpp dafa feeñ ci mbir mi dafa mën a bale moo tax ki ko bëggoon a rey mu baal ko dafa óolu yàlla moo tax mu tëddaat wan gannaaw noon bi parce que bu yàlla tudd deem gi du fa dee waaye dafa doon jàmbaar ndax ku dee ñëw te tiitoo ba nga mën a tontu tontu bi nga tontu ba waa ji di tiit jaaseem ji di ko rëcc ku am fit nga waaye loolu itam mi ngi woon ci Cheikh Ibrahima Niass bam doy benn jafe-jafe amoon na ci lew na président de la république mi nekkoon ca jamono jooja di sengoor Senghor wax wal joojo ca jamono jooju ne ko nañ xesaar kër Cheikh Ibrahima Niass bu kenn dugg bu kenn génn fekk bàyyi nga fa yaa faat Diop génn gis ne alkaati yaa ngi fees mu ne lii lan la ñu ne ko kenn du génn kenn du dugg bañ régler problème bi bàyyi di wax bi ñu wax ci bàyyi mu dugg si ak fekk bàyyi ngi jàng jukkeem bi mu ne ko alkaati yeeg soldaat yi de ñi ngi fees place bi kon nag léegi baal ma dañ ma sànni woon asi kayit ma di ko jàng kuy tàggoo la yàlla na ko yàlla yóbbu ci jàmm ma ne Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu loolu daf ko nuru woon yónnant bi loolaa tax bañ xisaaree këram bi soxna si ñëwee ne ko dañ ma aaye ne du ma génn ñu ne kenn du génn kenn du dugg jukki bi mu tiim di jàng teggiwut ci bëtam dafa continuer rek di jàng parce que ñooñu mënuñ ko yàqal ay mbiram Cheikh Tidiane Niass mu bàyyi moo ma ko nettali ren ci néegam tombeeg moom mi ngi ñëw di xëy di nuy si bàyyi lew na fanaan mari na ñëw di nuy si bàyyi dugg ci otoom bi bi mu dawalee ba ci buntu kër gi ñu upp ko mu taxaw ñu ne ko kër gi amoo droit dugg fii arrièreal ngeen départ parce que kenn du dugg kenn du génn Cheikh Tidiane dugal marche arrière am lu war a ma 10 mètres daal di dugalaat avance bi rek fiile ci seen kaw militaires yi plongé mu taw ba gaare ci biir ëtt bi pënd bi jóg mu cippeelu dem ci bàyyi. im ne ko salaamaaleykum bàyyi ne ko ah noo def sa oto bi nga ñëwee mu ne ko waaw. mu ne ko noo def ak ñi ñu wax ne ñooy garder kii bi nag mu ne damaa tawal oto bi ci seen kaw ñu daw ba raw may dugg si mu ne ko xanaa suñ la mënta tere day waruñoo man ci man dara. kooku mooy Cheikh Ibrahim ndaw yëpp nangul la konteel lii ndaw ci tànt bi danga xam ne bàyyi ndaw yi nangul nañ ko te yónnantu bi ne woon oote bu ngeen gis. ndaw ya ëpp ca xam leen ne oote buy dund la waxoon na ca teg ca ne damaa oote mag ñi weddi ma ndaw ñi nangul ma waaye mbooloo mu ngeen gis rek ne ndaw ya ñoo ëpp xam leen ne mbooloo moom moom muy dund la xool leen Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu bi faydu bi di tàkk ñi ko topp ñi ci ñi ko ci mag matuñ fukki nit te boobu moom fanweeri at la am xol ñi ko toppoon ñi ngi ci diggante quinze ans ba ak si vingt huit ans vingt neuf ans mooy ñi magoon ci faydu bi ci jamono jooju loolu moo yëngal àddina bi ba foo dem fekk ko fa mbooloo su ndaw ki ci mag am trente ans trente sept ans trente huit ans trente deux ans looloo fa nangu woon waaye xoolal mbooloo su ndaw soosu ak seen at yu ndaw yooyu nim nuroog mbooloo am yónnant bi mujj gi la tas lislaam tas na loolu dégg ngeen léegi Cheikh Ibrahima Ndaw tari na fi xasida bi Cheikh Ibrahima Niass doon wax awaluum xawsa lim na lu ëpp lu mat 22 xeet yoo xam ne fulaata rek moo ci am ci Sénégal lu dul fulaata yeneen yi ci des yëpp amuñ ci senegal te ñëpp nërbindu nañ seen roxo yi uy si Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ni roxo yi uy see yónnantu bi ci lislaam roxo yi uy jee ko Cheikh Ahmad Tidiane ci tariqa roxo yi uy see ko Cheikh Ibrahima Niass ci bunt faydu mu des nag benn question lu tumuranke loolu mooy lan xam yàlla googu mooy lan bàyyi plus boobu mu indi mooy lan danaay wax ne ku mën a tontu yu ndaw rek da nga ko xam yàlla dafay wax ci alquran ne lépp dafay raaf jëm yàlla ji rek des kañ la alquran a koy wax di kullu man alayha faanin wa yabqa zul jalali yàlla ne na léppay raaf ba mu des jëmmam ji kañ la bu ñu reyee yàlla bu ñu reyee ñu ngi ci biir suuf si di demuñ fen wala boog bu ñu génnee la bu ñu génnee demuñ fen dafay dugal ñi aljanna dugal ñi safara aljanna nekk fi fees ak ki nit safara nekk fi fees ak ki nit kon kañ lañ fiy jógee loolu yàlla wax te alquran lu mu wax dëgg la te yàlla ne na bés dana ñëw lépp raaf ba mu des ko moom kenn kañ lay raaf voilà une pertinente question dof mën na koo laaj mais dofa koy tontu yi nag bu baay pare ci moom billaahi wallaahi tallaahi bëri na ko yàpp kër Cheikh Ibrahima di leen sànni ay baat boo leen laajoon aaya boobu kañ lay fireeku rek nga kero ngay nga leen di xeeb te keroog ngay gën a naw Cheikh Ibrahima xam nga ku toog naan yàlla duñ ko gis moom bés boobu du ca yegg mukk ku toog naan yàlla duñ ko gis bis boobu doo ca yegg ba bis pénc fi lépp di raafe yàlla des doo ca yegg parce que bunt bañ ca yeggee moo la réer te ku amut du joxe gis nga yàlla mi ngeeg mi ngeeg ay laxas yu nekk ci biir alquran bala ngaa naw aarif billaahi jaar ak moom ci yooyu xam nga yàllaa ngi wax ci alquran ne loo janoon mën nga janoon loo janoon mën nga janoo man man ordinateur laa jano wala nit laa jano ki janoo garab kee janoog oto kee janoog nangam kee janoog baaful kee janoog lu nekk te yàlla ne na loo janoon mën nga janoo ba foogu leen ne loolu laaj na laaj na firi mission yi Cheikh Ibrahima Niass mi ngi noonu dafa bëgg nit ñi xam loolu yàlla di wax parce que gis nga lii alquran ji wàcc nii li ci nekk yëpp lañ war a xam gannaaw yàlla ne na bés dana ñëw lépp raaf man kenn ma des fi kañ la kañ la kañ la lépp di raaf yàlla des fii am na koo xam ne soo ko ko waxoon léegi mu ne la bu nit ñi dee bañ bañ suul leen lépp raaf na yàlla des keroog la fi nit ñi gën a nekk bu leen yàlla dekkalee sax ñii daf leen di yóbbu aljaanam ñii mu yóbbu leen safara xaalidiina fiyaa nag la ca teg dañ fay béel xaalidiina fiha dañ koy béel kon dañuy béel ci aljanna ak safara kon kañ la fii lépp di raaf yàlla des fi kañ la benn alxemes ci fan yi nii damaa toog di seetaan télé quatre heures du matin quatre heures du matin ma dégg benn xalif général mu wax wax joo xam ne damaa defarwaat toog mu ne gàmmu gi su ma ko gàmmoo ba bër set ku fi fanaan ba bër set soo fi jógee da nga wax ne dégg naa lu ma mës te dégg wala dégg naa lu ma gëj a dégg ma ne ah man de bëgg naa dégg ñaar yooyu yëpp soxla naa leen ma toog defarwaat bu baax parce que benn bi mooy maaman ñépp benn bi mooy kenn mënuma ñaar yooyu la déclaré ma toog nag di seet maneelam gi ak kenn am ji fan la mu ne dafay am ñuy wax ne xam nañ yàlla su ngeen dajee ak ñoom billaahi wallaahi tallaay soosuma ko ab xalif général moo toog di wax lii ci gàmmu goon xam ne ziyaare baayam la bu ñu askan moo wax ne ku fanaan fii ba bër set soo génnee da nga wax ne dégg naa lu ma mës ta dégg wala dégg naa lu ma gëj a dégg dégg naa lu ma mës ta dégg mooy mën naa wax lu kenn mënta wax wala dégg naa lu ke lu ma gëj a dégg mooy ne danaa wax wax joo xam ne kenn waxagut lu ko romb kon moo maa fi man wala ñeent benn benn yi fi nekk te duur ne maa leen man maa ngi ñoom yem la tege ca wax ja rek mu ne dafa am ñuy oote ne dañoo xam yàlla ñooñu suñ xamee yàlla yàlla laaj leen leen yàlla dafa njool wala dafa gàtt laaj leen leen yàlla dafa xees wala dafa ñuul xoolal ministre bi ministre taalibe baay bi am 17 ans ministre di jàng ministre di daaj condamné di jaay fëgg dënnam di déglu xalif boobu apprenti oto bi nekk aarif billaahi nappkati jën bi tailleur bi jaaykati CD bi ci mbedd mi jaaykati buum jaaykati nangam ñooñu ñëpp jofi ca jëmm yàlla ja ba xam lépp dellusiyaat ngay wax naan nañ ko laaj dafa yàlla dafa xees wala dafa ñuul kooku wan na nit ñi ne yéen ma jàpp sëriñ waaye matuma ko ku xamut fam nekk xamoo niñ koy xamee jarul kenn di la topp pour dem ci moom dama mos a dégg dama mës a dégg sëñ Moustapha si mu wax wax ju ma neex mu ne nit ki feebar jóg di seeti sëriñ bi yaakaar ne bu yeggee sëriñ bi ñaanal ko mu wér mu ne mu ñëw fekk sëriñ bi sibbiru di jooy sibbiroom bi dafay yàq xoli taalibe bi taalibe bi dafa sibbiru naan bu leen ma ci sëriñ bi mu ñaanal ma ma wér ñu garang-garangee la ba ci sëriñ bi nga fekk ko mu si biru di ko jooy mais kooku mënu dara ci si biru yow sax nag sa bos yow taalibe bi sax nag sa bos am nga yaakaar ne bu ma yeggee fee wér mais kii moom sax amatul ci yaakaar ba ay jooy la koy faje koo koo gën a tële fii bu si biru kooku dafa yàq xoli taalibe xam nga taalibe bi ñëw dénk la boppam ngir yàlla nga wan ko ne ko xaw ma daraay yàlla soo bala billaahi su ma demoon sukkal sëriñ mu ma ne ma xaw ma dara yàlla ma wuti feneen parce que su ma ko waxut bu ma fa toogee moo may nax su ma waxee ne nag li nga soxla xaw ma ko su ma fa toogee may nax sama bopp te man nag nangu naa nga nax man may nax sama bopp laa nangu wut maanaam noo mën a waxee ne ñi ñii oote ne dañoo xam yàlla laaj leen leen ndax yàlla dafa xees wala dafa ñuul maanaam kooku mi ngi natt yàlla ci espace ak temps yàlla wax nañu mooy kan nee na ke dara melut ni moom laysa ka mislihi shay lan mooy la laysa ka mislihi shay yàlla dara dafa melut ni moom lu tax dara melut ni moom li lépp nekk ci moom maanaam man sama cër yëpp fu ñu nekk du ci bàyyi tuuti ndax mën nañoo wax ne loxo bàyyi tuuti bi dafa nuru bàyyi tuuti ndax mën nañoo wax noppi bàyyi tuuti dafa nuru bàyyi tuuti ndax mën nañoo wax ne bakkani bàyyi tuuti bi dafa nuru bàyyi tuuti ndax mën nañoo wax sikki bi dafa nuru bàyyi tuuti sama loxo bi lu muy nuru ci man sama bakkan bi lu muy nuru ci man lu nekk dafa am nu mel loola la ñuy dajalante am bàyyi tuuti lu ñu wekki ci man li am tur yëpp ci man buñ ko wekki woon ma jeex du noonu kon bu dajee lay door a doon bàyyi tuuti kon nag wax dëgg yàlla duñ wax ne sama cër bi daf maa nuru kon li mel noonu ca yàlla yépp nag loola mënta nuru yàlla fa muy seet yàlla yàlla dafa wan gannaaw loola ndegam dagan nañu wax gannaaw ak kanam ci yàlla euh, arif dafa jafe fa waxat nit mën na fay wax ne xoolal moom kan ma ngay jam kee te ma ngi fiy juum parce que xam nga ko mel ni xalaaj toog ne maa fi jubbati ilallah sama mbubb mii dara nekkul ci biir lu dut yàlla jëmmam ji la bëgg a wax ne mooy yàlla mu ne mbubbam mi dara nekkul ci lu dul yàlla mbub maa ngi fi moom mi ngi fi moomeel gaa ngi fi yàllaa ngi fi te lenn la bëgg mu am xoolal fi taalibi bàyyi di toll ba xam ne kooku matu ren jii damaa dégg critiques yi di bëri lool ci waa Kër Baay mais attention yéen na ko def nag su ngeen dajalee àddina bi yépp fii ci ubbim juma mais ku mënul loolu nag dana leen sànni xeer te tooñul leen nag yéen ko tooñ doy na ngay xam xamle yàlla moo mënta xamle yàlla waaye nga bëgg a boole nag ci yëfi àddina lu feeñ lim ci mënoon a néew moo daan def nit ñi di yéem yow yaay def ñuy yéem kon ci ñaari boor yëpp nga bëgg ko foqar ñi nangu ko moom mu des mais ah dana wax nag dana wax nag dana wax waaye il mu wax nag. waaw man daal mënoo takk sama loxo yi takk sama tànk yi ba max ma ci ndox mi ne ma bul bul bul tooy takk sama loxo takk sama tànk sànni ma ci géej gi ne ma bul tooy yëfi caaxaan la bokk lu nekk nag tuumaan lañ leen ko fi dégg nañ sax kilifa goon xam ne kaset yaa ngi wër waaye ndeysaan boo ko doon tontu tontu yem ni lam wax dangay tooñaale wàllu yàlla wu mag sa baay doo kilifa war ngaa góor góorlu ba doo wax lu ñuy sànni muy àggaat ca kilifa ga yow moom bi nga demee ci kilifa di ko sànni ay baat yu dëgër rek lañ xam ne matoo ko yow xam nañ ne yow matoo ko tu es trop yem nag duma ma continuer mais il est weddi maarifatu billaahi yow loo ciy gañee lu dul ñu xeeb la man de li ma foog mooy ne Mbambilor ñi fi teg ànd ak Cheikh Ibrahima Ndaw mii yàlla lañ soxla moo tax ñu ànd ak moom waa jan yàlla yàllaay léeb mbooloo mi de yàlla moom yàlla lañ fiy ut si gannaaw amee ko doo leen doo leen yewi ñu dem feneen góor gu maandu ga de ba waa ji ñëwee ne ko damaa bëgg a jël tariqa tijaan mu wax ko charte yi mu nangu mu jox ko ko mu ne ko waaw ñaata fan laay def nag pour ñëw def yooyu mu ne ko yan mu ne ko yooyu ñuy def pour xam yàlla mu ne ko demal ci waa kër Baye Niass xam nga kër sii Ibra mu ne ko waaw mu ne ko dem fa ñoo mën nañ loolu loolooy maandu loolu mooy maandu mënoo ko bàyyi ko mu dem ci ku ko man boo ko mënee jox ko ko séeréer ba dee bam baye ba nawet wàcc mu jël addiyaam ju rëy ñoo jox sëriñ bi sëriñ bi kontaan ne ko hee yow moom maa la garantil aljanna mu dem ba ca buntu kër ga mu dëppaat ne ko sëriñ su ma la njëkkee dee fan laa lay xaar ak yow soo ma njëkkee dee fan laa lay fekk sëriñ bi téye gémmi ngi mu dëpp ne ko indi suma addiya noo may dugalee aljanna te boo ma jiitoo xamoo doo ma wax fi ma lay fi nga may xaar ak man bu ma la jiitoo fan laa lay xaaraale ku réer la rek bëgg a dénk boppam ku ñun nag suñ xos na az suñ wërsëg wu yaatu mooy xiif nañ mais dañoo tase ku togg lu neex te bëri loolu mooy wërsëg wu rëy wi yàlla may nañu wërsëg wu rëy wërsëg wi mooy ñun yàlla rek lañ xiif mais yàlla boole ñoo lu ku xam yoon wi muy Cheikh Ibrahim suñ mbokk kon Konte wax na ko xam nga douze mille salaatu fatiha nga di ko jàng te demoo fen soo paree dem tëdd nelaw bay xaran lim bu tuuti ñu jox la ko nga yegg fu waaj a yeggutoon te lim doon jàng ngay jàng mais am na lu ko gunge. maa ko mos a laaj Baye Omar ma ne ko Baye Omar bi leen Baye soobee te amagu leen fatxu xamoon ngeen ne li baay di wax dëgg la mu ne ma waaw waaw ma ne ko nu ngeen ko xamee mu ne ma lim bu ndaw bi mu ñu sóob ñépp gàddu satala dugg ci gott bi biir yëpp tekkeeku di daw ñu xam ne lim bu daw bii di yëngal biir yi balam ñoo ba am fu mu jëm ak ñun yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi muy ñëw dafa fekk àddina bi yëpp réer ñuy rey doom yu jigéen ñi di suul di leen xañ ndono ku am doole dóor lem nangu lam am jëfandikoo soo amee say doom yàlla def ngay nit ku tuuti nga am ay doom nga bëgg doom yu rëy da ngay dem seeti am ponkal ci dëkk bi ku mat deux mètres nga jël sa jabar yóbbu ko fa deux mois ba mu jël ëmb nga indi comme ni ñuy def fas yeeg xar yi nga xam ne da nga koy tëblu ji ci feneen booba temps loola dafa amoon man doom ju ponkal laa bëgg waaye man asi ñab laa nga jël sa jabar dem jox ko benn góor ba mu jëlee fa ëmb nga indi ko parce que da soxla ay ponkal yuy dem di dóor di nangu ay alali jàmbur di indi te yow sa sa jëmm ji ñab la nga jàpp ne soo ci amee ay doomi ñab duñ fi mën a xeex di la indil dara nga dem tëblu ji sa jabar yi pour indi ay doom yu ponkal foofu la yónnantu bi fekkoon àddina bi fekk nit ñi di tiitaroo def lu bon di tiitaroo naan sàngara sàcc dog ci mbedd yi loolu lañ doon tiitaroo loolu la fi yonantu bi fekk yonantu bi ñëw commencé di ko régler mais ndànk-ndànk te tadrijiyan muy dem ak ñoom ndànk-ndànk toog bam yàgg yàlla ne ko waxal sa gaañi ne leen bu waxtu julli jege seetee buñ naan ñi ngi bëgg a naan waaye dañoo départ bu waxtu julli jege seetee bu leen naan gaa yi daal di commencé bu jullee gee ba pare diggante gee ak fajar dafa sori ñuy naan buñ màndee danañ mën a xeri balaa fajar dem nañ ba miin waxtu woowu la ñuy naan yàlla xëy na lii dafa baaxut bu leen ko jegeeti yónnante defar société bi ndànk-ndànk laay ci ne yàlla moo bind doomu aadaama yi jógee ci benn bakkan mu jël bakkan boobu bindal ko jabaram te leen génnee ci ay yu góor ak ay ngirte yu jigéen loola di law nga déggee ci ne yow fi nga jógee fa la jigéen ji jógee te société du doon góori kese wala mu doon jigéeni kese kon ñoom ñaar ñooy def société la tubaab bi waxoon mu ne góori kese matul nit jigéeni kese matul nit góor ak nit ñooy góor ak jigéen ñooy mu ne góor i kese matul nit matul nit am na benn woykati américain daf ne góor moo defar avion góor moo defar saxaar moo monte courant mais bu ko yàlla boolewut ak jigéen is nothing du dara il n'est rien parce que mënutut a produire asamaani kese du meññal dara suufi kese du meññal dara moo dafay def mbootam ëmb ak génnee ci suuf mbootam tawal ci asamaan mu di ko sottil muy taw comme benn asamaan moo tiim joor tiim dox dex euh, euh, jël ak ñoom méthode boobu góor gi mooy asamaan jigéen ji mooy suuf kon góor gi am na xaqi denc ñeenti jabar yonent bi noonu la fekkee woon àddina bi lëj muy lijjanti rek di ñu dem ba mu yàgg jamono la Cheikh na de na ne yonent bi mission am pare na li war a sotti yépp sotti na ko waaye ba léegi am na koo xam ne naanub sàngara bànc am na koo xam ne kartiwut waaye ma nga toog di jëw am na koo xam ne am na koo xam ne Cheikh Ahmada Tidiane ne kaay ma récupérer leen dugal leen ci benn siège boo xam ne bu ma paree ci yéen seen xol bi dootu bëgg lu dul lu baax boo jullee suba rek mun na la kurus gi jàngal Faatiha musul seytaane nga musul seytaane mun a jàngal faatiye nga jàng faatiye mun na waxal téeméer yoon astafurla julli ci yonent bi téeméer yoon tuddal yàlla téeméer yoon libéré la nga julli tusubaar mu ne la noppalu batma tàkkusaan nga julli ko mu ne la li nga xëyoon def gontal def ko nga daal di cay delluwaat bàyyi mu ne nit ki gën a soxor ci àddina bi soo ko tooñoon ba mer tongu la pour rey la nga ñëw ba ci moom nga ne ko bëggumaa wax ak yow te raxasuma sa sama cër yi raxas sa loxo raxas sa gémmiñ raxas sa bakkan raxas sa kanam raxas say nopp raxas say tànk raxas léppam set nga ne sa sell gi moo tax bugguma di sobe di jàkkaarloog yow nga ñëw lam gën a fonk nga ubbee ba pare daal di koy balu téeméeri yoon ba pare taggal ko mu gën a fonk téeméeri yoon ba pare tagg ko moom ci boppam téeméeri yoon nit ki lu mu soxor soxor baal la yàlla mi nga xam ne dafa baax yaatu bind doomu aadama te jëlee ko ci jëmmam nga xam ne lu mu teg ci moom mu saf si ci moom wala li may wax a ngi moo ko bind jëmee ko ci jëlee ko ci moom dafa mel ni boobu gag rek doy na ma bëgg cee teg nag ne lu mu jam ci moom mu safi ca moom ah dëgg dëgg boobu dafay waajal mais nag ëpp ndax ñi ma koy waxat ñi ngi koy dégg Cheikh na Ahmad Tidiane fa jot mu récupéré la jàng loola Fatiha astaghfirullahal azim allazi laa ilaha illa huwa hayyul qayyum fanweeri yoon jàng loola salaatul Fatiha juróom fukk yoon jàng loola laa ilaha illallah téeméeri yoon jawharatul kamal fukk ak ñaar xoolal ni muy yéegeeg yow ak wàcc ak yow dafa départ ak yow ci benn fatihatil kitab benn jëm yàlla ji taxaw mu daal di ñëw ak ci 30 astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwa hayyul qayyum 30 zéro la baare ko luy des 3 te jëlliyaat yaa ngoog jógee nga ci jëmm yàlla ji jaar ci àqatu muhammad yaag ahmad yaag ibrahimiya Cheikh na Ahmada Tidiane ne la duma la ba kaay nga jàng juróom fukki salaatul faati juróom fukk boo wekkee zéro bi lu fa des juróom mooy juróomi pays yi zaatillaahi taala àqatu muhammad ya ahmad ya ibrahimiya ak naasuutiya bi nga déparé woon kon juróomi pays yi taxawaat mu daal di lay jëlaatee ci foofu yóbbu la ci téeméerab laa ilaha illallah zéro ya boo leen baaree benn mooy des delloowaat na la ci jëm yàlla ji door laa indi ci naasu gi nga mën a taxaw ñaan say soxla loolu la la Cheikh na tijaan yi di jëlee jaarale la ci yàlla yóbbu ci yónnant bi yóbbu ci Cheikhu Tidiane indi la ci bàyyi delloo si la ci sa bopp delloo la ci yàlla ngay di la purifier di la purifier ba nga sell sa roxo gi soxla yàlla nga ngëlëm di wuti sëriñ ki nga daw dem ca moom fekk moo la ko gën a soxla te rus koo wax ndaw problème léegi kii moom organiser na la yonent bi pare na ci yow organiser na la lii baaxut bàyyi ko lii baax na def ko lii nangam lii nangam pare na Cheikh ma Ahmad yi ne la yoolu yonent bi daf la ko wax kaay man ma pratiquer ko ak yow jël la dugal la ci siège sa xomaat yi di rot sa xol bi nëx-nëx yi ci nekkoon abateel yi sukuuk yi yépp di wadd di wadd di wadd ba nga xëy sell nga taxaw ci bunt bi nag daldi ne man léegi dootut sama biir bi moo xiif dootut sama bët bi moo xiif waaye man sama roxo gi ci boppam moo xiif a jofi ci yàlla il faut ma am sàmm bu ma mën a teg ci yoon wi topp ma may ndomb ñoom mi ba ne menten ci sama biir jëmmi borom sëriñ boo daw dem mu ne la toogal boo toogee def fa ay fan ñeneen di fàtt fàtti ci sa wet rek te moom amul dara boo ne ko waaw ñee lañ nekk ci laa bëggoon a mos mu ne la ñooñu dañ la naa jox lu yéen sikar dañuy dof ñi naan la saafara la ñuy naan xam nga benn waaye newoon na mu ne Medina dañoo am njaq soo xam ne ku ci naan rek dof man de bu ma gisoon sëriñ bu mën a am njaq soo xam ne ma nga dakaar ma nga Mbambilor ma nga Mbuur ma nga Thiès ma nga Casamance ma nga Nigéria ma nga Ghana ma nga Chine ma nga Amérique nja maanaam njaq si daal fu nekk ma fay jomb jombi man daal njaq su mel noonu sax ku ko am ma gëm la njaq su mën a wër àddina bi ku nekk rek naan ko rek di fàtt fàtt yi te buñ paree ki ngay tuddee dof mooy réglé waat say mbir après danaa koy faral di nettali benn waaye bu jógee Dakar ñëw Mérina salaamaaleykum ma ne waaleykum salaam damay laaj laajte Baye Tuuti Ñas ma ne ko man la xam nga nag boo ne Baye Tuuti da ngay foog ne ku tuuti ngay fekk si mu ñëw fekk ma nag macha ma yem ni ma war a yem damay laajte Baye Tuuti ma ne ko maa ngi nii mu xoolaat ma ne nii nii daal di ne kii ma ne ko Baye Tuuti ngay laaj mu ne waaw ma ne ko man la sama turwee tuuti jëmm ji tuutiwul man la mu ne waaw dafa am sama benn rakk bu jógee woon Dakar ma ne waaw nu mu tudd mu ne nàngam mu ne mu ñëwoon di def si seen affaire yooyu ma ne ko suñu affaire yi lii dof loo de mu ne teg ko yàgg mu ne ma waaw ma ne ko seet ko mi ngi fi de jëlal yóbbu de boo ko yóbbuwul mu dof de mu ne ma ah dafay dof de ma ne ko waaw ah du fii la ñuy dofee bu fi ñëwee di soo mbokkam séeréer ma loolu la waxoon di ba ba jegaan demee màkka ba mu demee dee fa ñu ñëw ne ko jegaan dee na mu ne fu mu dee ñu ne ko màkka mu ne moo ko tey yàlla di ñu fekk Sénégal fii du ñu rey moom mu dem fa yàlla dëkk nu muy def ba du ko rey ma ne ko gannaaw kii mënoon naa toog Dakar dofee fa mu ñoomu ñoomi ba fi ñuy dof looyee nit foog mu dof dama ko pompe pompe sës ne ko day dof mu toog ma daal di yónnee pour ñu ooye xale bi ma ne ko xamante nga ak ñenn ci famille bi ña seen ñeeg ñooñu mu ne ma waaw ñu bëri kay diw diw ñim ci lim ñim xam yëpp mu lim leen ma ne ko dañoo dof mu ne ma déedéet ma ne ko man mi jàpp nga ma dof mu ne déedéet sëriñ bi ma ne ko loolu ngay wax nag ci sarak ji te ngeen gëm ne dafay dof loo ñi ngay gis ci dëkk bi yëpp def nañ ko mu ne ma ah ma ne ko waaw mu ne ah waaw lu tax ñoom dofuñ ma ne ko mën naa am da ngaa yéex a ñëw fekk ñu wér maa ngi moom maa ngi moom ba mu yàgg mu ne ma waaw sëriñ bi kon lu tax nit ñi di wax ne lii dafay dof loo ma ne ko garde fou la garde fou bu président di ñëw weñ yooyu ngay gis ñu jokkalante nga xam ne doo ko mën a jéggi di dem ma ne ko loolu rek la sëriñ si di def ma ne ko dañ fiy nekk maak yow nga am téeméeri taalibe ma am téeméeri taalibe ngay jullit may jullit ngay tiijaan may tiijaan yow nga mën a yóbbu ci yàlla man mënumaa yóbbu ci yàlla sa téeméeri taalibe yëpp xam yàlla sama téeméeri taalibe yi nekk fi rek di ma taxanal di ma bayal di ma jox addiya di ma bës di ma upp di ma may ndox may bànneexu rek ñu dem ba mu yàgg fukk na ci yolee daal di ñëw mos xam xam ne matatuma leen sëriñ ñu toog ñu toogaat ba mu yàgg fukk dem ñu toogaat ba mu yàgg fukk dem kee am téeméer ak fanweer man ma desee juróom-ñaar fukk te ñoo yemoon luñ fu ñu déparé ah bu ma defut pexe dañuy jeex balaa di ñëw gis ngeen nag diw ak diw ak diw njabar nañ leen bañ toog fa yéen itam ku fa jege danañ la dofloo ñooñu dañu nga ñëw tase ku nekk ci fanaaw di fàtt fàtte xaal bi tàng jot ko nga ne kii dof na daal di daw foofa yépp ma ne ko musal seen bopp ci ñàkk taalibe rek la benn waaye bu daan jàngalee école Mérina tudd monsieur fay benn conférence dafa amoon lii lycée technique sama benn mag boo xam ne nag yàlla def na bokkut ci séddale Cheikh Ibrahima bi moo doon def bi mu paree nag mu di ko laaj ne ko waxut ko ndax mbir mi dëgg la am du dëgg daf ne ko damay jàngale école Médina may gis loo xam ne mënatuma koo weddi te wax dëgg yàlla ma gis kër yu bari duñ koy def ma bëggoon a laaj ci loolu mu ne ko lan la mu ne ko damaa gis xale buy téye kurusam wala jigéen wala góor ba yegg ci benn maqaama mu ne kenn nettaliwu ma ko naaj wu tàng wi ci lañuy def tànki neen di dox te seen tànk yi futut yuuxuwuñ muy mu ne mu ñëw fekk kii fataaya di jeqi fataaya bi ci biir diw gu tàng gi mu dugal loxoom ci diw gu tàng gi yëkkati fataaya yi di lekk di dem te fatam tuut mu ne mais kooku fi sëriñam jaar ak moom bu ne ma boo àndeek man doo lakk àllaaxira ma war koo gëm vraiment équation la ci man ma ne ko ci sama xel billaahi duñ ko résoudre fi ñu koy laajee waaw nekku fa de tontu ga nekk ko fa de la suñ mbokk mi waxoon ba mu ñëwee fekk Diofior waa ji toog di tari alxuraan tari mi gaaw lool mu ne ko waxal lu la neex weddi gi nekku fi fekkoon ne misra nga ko waxee wala koosi buñ noppee rek ma xam ne li ngay wax wér na waaye fii moom waxal ba sonn wé weddi gi nekku fi waaye wax dëgg yàlla dem ci ku ko réere nga di ko ko laaj doo am mukk tontu gi ndax weddi ga nekku fa Cheikh Ibrahima Niass nag noonu la ku neexa a dendat la mais ku jafee dendat la parce que ça ne se comprend pas vécu la vécu da nga koy dund mu nekk ci sa biir nga di ko nelawaale di ko yeewaale di ko futbaale futbalaale di ko jàngaale di ko nekk ak moom ci waañ wi di ko toggaale da nga koy toon yow la tu la sens foo nekk rek mu nekk ci yow di jàllarbiku nga di ko yëg loolu la moo tax kii xaar nga expliquer ko ko ba mu comprendre ko ba bés penc du ko dégg su dégg doon doy keroog bopp bi ba bilaal toogee ñu di ko wax kësi bi rasul fen loolu yónnantu bi tiim ko di ko caw ay der deret ji di xar der bi di xar der solo mi deret yi di sànni mu am fanaaw nekk ci zaatillahi taala di tontu ahadun ahad fenn loolu yonent bi ahadun ahad mooy tontu li wala bilaal dafa xamut liñ ko laaj weddil yonent bi lañ ko wax mu naan ahadun ahad parce que mi ngi ci pays ahadiyatu am na fanaaw fi zaatillahi taala loolu bu doyut waat fekkoon ne dafay wax rek lay doon kon mu jeex billaahi kon léeb yi ci alquran doy sëkk yàlla nee na mooy awalu nee na mooy aaxiru nee na mooy zaahiru nee na mooy baatinu waaye ban nga ci forcément dana am ci catégorie boo bokk benn ngay zahir wala ngay baatin te yàlla ne na mooy baatin te yàlla ne na mooy zahir yow zahir nga wala baatin nga loolu su la doy pour waar la garab di wax ne man maa yàlla su la doy pour waar la Moussa mu yore jën wuñ waas fiiriir ko dugal ko ci mbuus mu xar mbuus mi rëcc ne cëpp ci biir géej gi dekk yi di dem bu la waatul ba nga xam ne dee dekk am na fii kañ ngay waaru yàlla nañu yàlla fayal Cheikh Ibrahim li waral ñu bëgg mu fayal ñu ko mooy daf ñu jox loo xam ne ça ne trouve nulle part ci moom rek nga koy amee mu jox la bam doy du xam ban classe nga du xam loo denc du xam ban waaso nga du xam ndax man melal lu la mel neex ñëwal ma defar la foofu la am moo tax benn waay bu bu maandu waxoon na ma ko ci benn ngénte bu ma doon tudd Pikine mu ne ma man ak sama sëriñ de buñ ne woon yàlla dafay wàcc ci àddina man ak sama sëriñ danañ dem Medina Baye toog xaar ko parce que yaakaar nañ ko fa mu teg ci ne fu nit yàqoo boo ko yóbboo Medina Baye mën nañ koo defar ku yàqoo Medina Baye bu ñu yóbboo sànni ko du jagee fenn loolu nag firiwut fenn du fenn fu nekk fam doo la dox li may wax nii firiwut ne fenn du fenn de fu nekk fam doo la dox waaye du tere yi ñun fiñ dolañ do fiñ do nag mooy jofi yegg ci xeebut yéemut xeebut yéemut loolu jëmm yàlla ji la bul xeeb dara ba génnee ko ci bul yéem dara ba génnee ko ci li silmaxa si di yalwaanee xeebut yéemut mooy jëmm yàlla ji xeebut yéemut nag bàyyi mooy màng di fa yóbbu kon wax dëgg yàlla suñ taxañoon li des suñ dund bi yëpp jox ko ko du tax mu doy Mohamed fëggal sa gaa yi ngeen fëgguñu ñu ñu tàggatooy tudd yàlla gu tàng suñ paree ñu dénk suñ bopp Cheikh Ibrahim ñaan ko mu suturaal ñu ci faj suñ soxla yi su ngeen paree tudd moom fu ngeen jaar tàggatu tuddal leen ñu yàlla gàmmook Adi Cissé la yéen ko tuddee Adi Cissé Adi Cissé dund dundam du waxtaan sikkar la sikkaral leen ñu bañ dekki ñu dénk bàyyi ñaan ko nag mu suturaal ñu ci soxla fi ñëw faju غير الله Hey, la la la la la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 hayda hayda hayda hayda

Hayda la la la إلا الله لا إله إلا الله

la